waa xam nga yadu yi bii ñaari yoon rek dafa ñëwagul. waaw te te li ma ñëw ci bërëb bi bari na. moo ma jaaxal. waaw kon nag bu ñëwee rek dafa amul tax mu ñëw. Mm. du yow du kii di euh, ñu ko seetaan. Mm. sama mbiru bopp la nañ ma ko bàyyee. yadu bëgguma kenn du ci wax nag. fi mu jigéen mënoo ko xam. moom teel na maa fem di. waaw mënu ma xam fu mu bu fekkee am beneen laaj bu mu laaj ñu laaj ko te lii ñu bokk fi mu ne. waaw ku ci yadu joxewuma ko te du ko diggee. nga ne yet wi dikkee gis naa fi yaxu yaranka de yërëda yërëda sèche waaw xam naa mooy lii waaw lii maanaam naru ma ko indi sax ku weddi ma jël seede doo yaa ci yegg yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg seen site bi di Sunugal 24 euh, dellu siwaat àndaat ak yéen ci kër Mbaye <coughs> niñ koy defee saa su ne ci ñaw xalima gis ngeen mag samay abbaye jub ramadan oblige koor gi la ñu jub donc ñu ngi déwénati ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di sàkku ci ñëpp itam nañ ñu baal ndax nag euh, tabarkalla macha allah liggéey ak nit ak def cee gaaw lool lool ba tax na maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun di wax ne rek wéy leen di abonné ci sunu site bi ndax lépp lu leen yitteel rek dañ ciy taxaw tey nag ma daje ak koo xamante ni macha allah dootuma ko présenté am na yoo xamante ni dootuñ ci dugg ci laaj ndax leer na noppi nit ñi teyit nag nit ñaa ngi koy dëgmal jamono yi mu xatoon lool waaye nag ñu fexe ba mu dellu siwaat ñu xool rek ñaan yeeg tolluwaay yi ak xeetu bees bees yi nga xamante ni am na fi te mbokk yeeg askan wi ñëpp àndandoo ne gongo sëñ ma di ké maa ngi lay nuyu la bàyyi nga nuyoo mbokki internet yi waaw ah, kay soxna Mbaye noo ngi lay fay mhm. euh, tey siyaare ñëpp nag tey ñëpp nuyu kilifa diine yi kilifa yi mm. waaw tey siyaare ñëpp rek mboolem foo xam ne suñ kàddu yegg na suñ kàddu yegg yegg na fa rek noo ngi siyaare ñëpp tey jéggulu ñëpp mhm. waaw tey baalu àq ñëpp nag ci coono yi mhm. Mhm. am na solo sañ sëñ Madické Gadiaga yaa ngi géejawaay ba léegi marché Mame Diarra waaw maa ngi géejawaay marché Mame Diarra ndax moom nit ñi fu ñu xam rek mm. la gën mooy nga toog fa te foofu maa ngi fay bëgg yàgg te wax dëgg damaa damaa doxul ci dara lëndëm lu ma lu ma jaral toxu foofu laa jëmoon parce que mm. sa gars yi dañuy faral di toxu toxoyee toxu bi lool te bari lool te metti yow boobu ba léegi bi ñu dalee ànd ba léegi yaa ngi foofu ci géej waaye ci marché Maam Jaara waaw maa ngi foofu nag di moom daanaka su suñ lépp foofu la nekk mm-hmm. waaw moo tax fi sañ ñoo doxu dem fenn nag mm-hmm. te fañ nekk itam wax dëgg yàlla euh, ñeme nañ fa mm-hmm. tey tam képp ku ñu fi fekk si tam da moom euh, daanañ rafet njortu ci yow mm-hmm. waaw ndax ndax day dëkk bu sell dëkk bu barkeel mm-hmm. waaw ndax la nekk moo tax lu fa nekk waaw dafa am lu fa nekk daa mm-hmm. moo tax nga bañ a doo fa jóg waaw waaw même <laughs> même bu loolu sax nit ñi waaw ah. man laa bëggul ñu ñu dama xam ñu dama xam ci ay barab yu bari d'accord fa ma nekk rek ba ñëpp xam ko dama toog foofu d'accord moo koy gis ngeen ko sëñ Madické la ñu àndal ma nga foofu ci diwaanu Guédiawaye toxuwul benn yoon sëñ Madické bi nga fiy mujj Euh, yat wi ñëw na joxuñu yat wi nag moom sa bopp rek nga koy jubale du jëm ci technicien bi du jëm ci man du jëm ci kenn sëñ ma dikki xanaa tey dig ma may ci yat wi waaw xam nga yat wi bii ñaar yoon rek dafa ñëwagul waaw lii ñëw ci bërëb bi bari na moo ma jaaxal waaw kon nag bu ñëwee rek dafa amul tax mu ñëw mm. du yow du ki di ñu euh, ko seetaan mm. sama mbiru bopp la nañ ma ko bàyyee bëgguma kenn di ci wax nag fi mu jigéen ma mënoo ko xam moom teel na maa fem di nu ma xam fu mu jógee. bu fekkee am na laaj bu mu war laaj ñu laaj ko te lii ñu bokk fi mu ne. waaw ku bëgg am ci yet wi nag. joxewuma ko te du ma ko diggee. ya nga ne yet wi. <sighs> soixante-dix-sept la. 882 53 34 daf ma jànni noonu toroxal ma dégg nga ci émission bi ba xamatuma numéro yi 77 882 53 34 wala 77 163 48 50 77 163 48 50 samay laaf sax tooy na waaye du ma bàyyi de yat wi dina ma wax li ci nekk lan la sëñ ma dikke jamono bi yëpp foo nekkoon waaw man moom mënumaa toog ndax li tax mënumaa toog mooy nit ñi dañ maa yaakaar gannaaw yàlla mhm. te nit ñi bu ñu yaakaar yaakaaree faaw nga génn mm. ndax mooy tax yaakaar ji am ci yow mu bañ a tas mm-hmm. waaw duñ ci dara nag ndax lépp yàlla la mm. waaye yaakaar waaye mbir moom bu may am mm. yàlla ci ay jaam rek la ko jaarale mm-hmm. moo tax faw bu ñu nit waxee soxlaam même bu fi nekkul danañ ko wuti mm-hmm. waaw ngir xolam mën a sedd waaw ndax dañ may jàmbal lu baree bari sëriñ si dañ dañoo bari léegi te bokkuñu waaye nag nit ki moom boo ko dégloo danga xam ba xam ci ban ban genre nit la te man damay bañ ñu boole ci ñooñu ndax man xam naa may kan mm. xam naa fi ma bokk te xam nga li xam naa fi ma dëkk mm-hmm. li may liggéey tamit lu wér la mm-hmm. li may liggéey lu wér la mm-hmm. alxuraan lay liggéey wax yàlla la dara gënu ko wér mm. si ma ci boole mm. duñ ay jullit kon ñu rax ci yëf yeneeni mbir moo waral génn bi di bari mais fekkoon dañoo yem rek ci alxuraan kon kon mën nañoo bañ a dem fenn waaw ndax yàlla wax yàlla moom dara mënu ko gën gën a wér dara mënu ko féete kaw te lum kum doyut mm. dara doo doy waaye maam mbirum sunguf sunguf yii moom mm. day lu munta ñàkk ci nit mm. mais moom Madické li muy joxe alxuraan na ci ëpp loolu xam naa ci dara sëñ Madické lan moo tax sa seet leer macha allah waaw xam nga man duma man du ma tomb duma ma pettaaw alxuraan lay seete te du ma ko làmbatu dama koy xool ba xam ko doo ko wax alxuraan moom li ci li moom allah ndax waxe yàlla moom amul luñ ci naatolle xam nga xuloo man lépp ci laa koy liggéey incha allah xuloo naa ci nit ma boole kook yow mm. mu woowaat ma ne ma kooku jarul mu may seetal parce que yaa ko xamul maay kan mm. ma ne ko waxuma ko yow yaay kan moom moo xool li mu xool gisal boppam alxuraan ji nga koy xoolee ba gis lu leer naa ñi gis ci saraxu nit waaye dangaa ñëw léegi ci xeetu sunguf te daf lay jaral nga génn dem sa bopp wutali ji ko sa bopp jënd dalaa doyul wala yónnee dalaa doyul wala lan moo tax waaw xam nga li tax du ma yónnee mooy mm. xam nga nit ñi ñi ci ragal yàlla léegi dafa bariwul mm. ndax man ngaa ne eh, sunguf nangam laa bëgg mm. mu dem nga dem mu jox la sunguf su ko neex mm. te man sunguf la ma ca bëgg mooy la may sàkkul saa bopp dem ba ca àll ba la ma ca war a tari ma ko ca la ma ca war a gas ma gas ko coono ba ma ca war a am ma am ko ca mooy tax man ma xam lii ma yor mooy lan mm-hmm. waaye toog sa kër rek yónni ay gone ñu dem jëndal sunguf amul mm-hmm. njariñ mm-hmm. te man doxee ma noonu ndax nit ñi nit ñi dañ laa yaakaar yaa ñoom képp yam yem la yàlla rek xam ki gën waaye am na loo xam ne yàlla ci yàlla ci yow la ko jaarale mhm. kon nag faaw nga sonn mhm. danga ci dégg lu nekk nag mhm. waaye loo ci loo ci may def itam na nay lu leer loo xam ne kooku séqal dana xam ne séq na ko séq na ko ki mu ko war a séqal am solo lépp lu may liggéey ci wàllum sunguf man maa koy wutal sama bopp bu dee lu ñu war a daggal maa koy dagg mm. bu dee lu ñu war a dëbb maa defar maa defar mm. waaye waaye ma du ma jënd benn garab ci àll bi ci àll bi déedéet moo waral jamono yi yëpp yaa ngi woon ci àll bi ba tax nga gëj kër gi nga xamante ni mooy kër Mbayang ni ma leen ko waxee sëriñ ma dikke Gajaga mi ngi géejawaay uh, ci ma boori marché Maam Jaara boo jëlee numéro yi suuf écran bi rek incha allahu taala uh, di nga ko jot uh, te it dana la wax fa mu nekk du koo xamante ne nag da nga koy woo doo ko jot déedéet heure boo ko woowee rek bu tombewul a guddi xaaj lool eh, den di nga ko jot eh, rawatina ñi nekk bitim réew te di ko woo eh, ci whatsapp sëñ Madické jamono bii ñu toll da nga ko fi wax waxati ko fi xëccoo sa mbir la xam nga ma xam ci lu leer xam ci lu wér ñoo xamante ni yaa ngi jëflanteeg ñoom waaye dafa am kàddu goo may dénk toujours na fekk ki may jëflanteel mu gëm ko ndax mbir boo ko gëmul mën mën naa ñàkk sotti jamonoy examen jii mm-hmm. loo ciy wax parents yi waaw xam nga examen moom xëccoo la. Mhm. waaye li may li may ñëwaat mooy yàlla mi sàkk mi sàkk jaam sax. Mhm. am na ñu koy dimet. Mhm. rawat na ñun ñi xam ay nit kese lañu. faaw ñu def ñu def loo xam ne nit ñi dañu ko gëm. am ñoo xam duñ ko gëm. waaye képp ko xam ne yaa ngi xel yar ci mbir. bu ko sàkku. bu la wóoree sëriñ bii doyu la. wa wala boog da nga ko bëgg a yemale ak ak ña fi jaaroon. bu ko ñaan loo. maa ngi dem ci moom man de ñaari bis man de ñaari bis boo ma woowee téléphone ne ma jaar naa ci diw ak diw diw mm. bay ba nga coupé da xam ne du ma ñaanal ba démb rek ka ci mujj nit woo na ma damay wax ay sëriñ sum jaar ajum fajuwut mm. dama ne kon dama seeti keneen ndax mën mii bu sa aju fajuwut ci man da ngay boole ci limba mm. tey tey tey mbir yàllaa ko yor moo ko fa mu ko war a jaar la mu jaaru ko fa ñun ay jaam rek lañu li ñu war mooy sabab sabablu la ca des mbirum yàlla la ndax lu nit gàtt gàtt xam-xam xam dara te jàmbar amul kuñ dimbali rek moo am. Mhm. lépp nag yàlla ko yor. d'accord mm, lépp moo koy joxe. d'accord la nga la la nag mooy mooy sabablu. Mhm. waaye ka ka nga na na ko wóolu. na nga ko wóolu gëm ko doyloo ko bàyyi ko sa bopp. maa ngi koy woo di jëflanteeg moom waaye ñoom ñëpp a yem loolu mën naa indi ñaan gu ñàkk sotti. d'accord euh, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci lu jëm ci côté boobu waaye ba tey sëñ Madické wàllu sunguf boobu ci lay desandi ndax daf ci am bayra bu garaaw boo xamante ni danga nga koy booleeg parfum suufu jàkka. suufu marché di ko xëy di ko laal wala nga wis ko ci place ba mu nekk sunguf su yéeme su doy waar soo xamante ni bayra la boo xamante ni même ki amul borom kër sax bu ko laalee yàlla mën naa def ñu bari songandoo ko sunguf boobu sunguf xam naa xam naa tooñ ko ma nag ndax xamaa naa ñàkku ne li nga mujj wax moom eh, ñàkkul la ko wax moom yow da damay teg fii rek damay jékki-jékki rek for bi naa ñàkkul ku la wax ndax waxuma la nga bëgg borom kër waaw waaye nga bëgg soxna sax mu tëla waaw boo ko laal da ko am ñëpp topp la ndax xama yëmul rek ci bayre mais day xëcc nit. ooj la waaw. Mm-hmm. moo xam nga bëgg soxna moo xam nga bëgg borom kër. mais mm. boo toogoon sa kër képp di ko raayoo sa sa njaboot yëpp dañ la bëgg incha allah. Mm-hmm. loolu moom bu ci waat rek bu ci waat rek mën naa ko waat moom parce que xam parce que xam naa. xam xam naa fi ma ko jël li ma jaaxal sëñ Madické bi nekk ci sunguf soosu te sëñ Madické daanaka li mu ciy laaj bariwul man loolu moo ma jaaxal. xam nga xam nga mbir bu la jararee rek. Mm. Euh, faaw mu baax. ndax yàlla bëggul ku raw na yàcc. mais yow li nga ciy laaj da ngay da ngay góorgóorlu waa xam nga jamono ji moo métti. Mm. te nit kii ba amee ci yow yaakaar. Mm. nga di ko laaj lu mu mm. dana sonn te nit ki ah, bu sañoon. heure bu la déggee téléphone. xolom sedd aajoom faju dëgg la kooku nag boo ko jafeelee menn mbir. dan nga koy lor rek. te amaana doo ko gisati. waaw loolu moo tax man man sama menn mbir jafewul. d'accord moo xamuy sunguf si moo xam muy leneen lu mën a doon. da danaa ko yombal ba nga mën ko am. ndax bu ëllëgee nga bu ëllëgee nga xam ki nga ko seqal mooy kan. Mhm. bëggoon naa gën a insister ci examen yi waaye nag dañu am ay bagages yoo xamante ni dañ ko bëgg a waxtaane examen yi mu ciy def yu doy waar yoo xamante ni ko ku bëgg am bac wala nga bëgg am CFE sa doom di jàng wala mu nekk ci concours boo xamante ni dafa laaj bu génnee am liggéey contacté ko non seulement sunguf soosu mën la cee jox mais am na yeneen i bagage yoo xamante ni looy xëccoog say nawle bu dee ñaar la di ci bokk bu dee benn la boo sàggatul yaa koy jël kon donc contacté leen ko ci numéro yi ni ma leen ko waxee xam nga ci xam nga 882 53 34 yaramam dafa tàng tey parce que dafa yor ay bagage moo tax di ma jànnee ka dagg nii euh, beneen numéro bi 77 la 163 48 50 nga ne xam nga xam nga da nga ne examen hmm. waaye waaye gisal loo bëgg loo bëgg. gisal bëgg rek ma yëg ko maam ci tënk rek gisal loo bëgg rek te ma yëg ko incha allah. d'accord. Mm-hmm. Eh, der bu ñuul bii bala maa ñëw ci jaaro yeeg bagages yi der bi der bu mu doon. xam nga der bi moom sama liggéey la ndax ma nga jógee ba Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Eh, ci lay defee sama lépp nag. Mm-hmm. waaye li wér te wóor mooy aajo ma mën a wax. Mm. ak ju mën a doon bu ma ci toogee ñetti fan incha allah danga ma woo téléphone yow sa bopp. Hmm? waaw ci der bi. ak aajo aajo a doon nag maam gis ko ni ak ñaawaayam bi rek. wa wa wa waaye nag euh, dara du fa xam nga xam nga man man man man man man man moom sama mbir lépp nii la. Hmm. parce que man bëgguma lu yomb. Hmm. bëgguma lu yomb. te yàgg naa ko wax. dëgg man moom lu jafe wër. parce que parce que moo tax ma xam may kan. ab jaam rek laa nag waaye lu jafe moo ma xam may kan. lii nag daj naa lu nekk. pour soog ma ko séqalam daj na ci lu ne. Mm. ma ba a am der bii. jaar nañ fu bare bare bari ba tax lii mën nañu Sénégal tey waaye lu man a xew lu mën a xew jàmm naa xam sa yitte mu yitte far nag. Mm. waxuma ay yitte yi ndaw ndawaan yi moom du ma du ma jar toog toog ci der bi moom. toog ci der kilifa. ma na yitte joo xam ne ma maam lu rëy rek. li la teree nelaw. waaw te mu jaral la ko. Mm-hmm. donc mi ngi noonu ñu ngi nuyu suñu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi Arabie Saoudite toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ci suñu site bi di Sunugal 24 macha allah dama koy ñemee dalal ndax ni ma leen ko waxee rek ni mu tollu la toll te bu mu fi dalee ñëw ak léegi woo ma ne ma sëñ ma dikkee Gadiaga yónnee naa ko sama xaalis joxuma samay garab ñaanalu ma wala ñaanal na ma nanguwul wallahi azim déggaguma ko parce que ñee naa leen ñoom ak seen bàmmeel man ak sama bàmmeel duma ci waxal kenn loo xamante ni lu amul la boo ko xasee ba yónnee ay ñaan sax ay bagage sax lu la war a ñaanal moo lay soññi di la woo sëñ ma dikkee gis naa fi yaxu yaranka de yërë de yërë de sèche waaw xam naa mooy lii waaw lii maanaam naru ma ko andi sax xam naa yow yaa ma sonal ci mbir mi waaye kon du ñëw ah déet dafa nekk loo xam ne gars yi dañ ko war a xam waaw waaye lu mën a xew jaam moom mi ngi nii hmm. li ci biir ko wax nag waaw ndax sama sama mbir bopp la waaye lu mën a xew jaam moom mi nii hmm. Euh, ci géej la jógee. te géej moom lu fa jóge nekk moom mooy loolu. kon xam na yërënd waaw waaw waaye lu mën a xew jàmm. Mm. mën naa ciy liggéey loo xam ne su ma ko liggéeyee. Mm. da nga jàpp sax du ma nit. Hmm? waaw. ci lu jëm ku may wax aajo. Mm. day nekk ajo joo xam ne. jaar nga fu nekk mu xawata demal ba sonn ba découragé. waaw kay boo sonnee. nga ñëw ci man. mais bu dee lu yomb la na la mën ko am faneen. bu ma sax jéem a xam. te képp koo xam ne nag sa ajo na dafa jooju man yàlla bu ma la xam. léegi ki man mi bëgg kayit. waa xam nga lii moom mën naa ne lu ne ngi ci. Mm. lu nekk laa ci liggéey. Mm. fa fu nekk laa ko jaarale. Mm. mi ngi nii nag moom ci géej gi géej ku ne xam na ko. waaye lañ cay def ba tax ñu mën a am mën ca am lañ ca mën a am. ci ñun lay doon. dëgg la ku ne mën naa awuti is eh, eh, yarank. waa lii waa moom yomb na. waaye lañ cay mam lañ cay def mbuut mbuut ma ca nekk waaw kay ba tax kooka bëgg lam bëgg mu am ko mm. loolu ci ñu lay doon waaye nekku ci lii kese yow woyof na toy mm. waaye la nga ca bëgg boo ko ca defee ci kàttanu yàlla sama liggéey la te ma ko defee da xam ne def naa ci ak lu mën a doon nag ku weddi ma jël seede yaa ci yegg jërëjëf numéro yaa ngi noonu ah, tey Madické Gadiaga laa àndal tey jii mu am aal bu metti bu mu àndal waaw parce que dafa dugg ci ñaay bi jëli ay bagages ñëw indi teg waxuma la sunguf si bayre seek pour cat ak yooyu waaye kaaraange gi sungufu kaaraange ga nga xamante ni ku la def dara nga gis ko ci guddi gi dafa wér mu ngi fi ba léegi. waaw xam nga bagage ma man du ma xaar mu jeex. Mhm. waaw ndax nit ñi waxtu nekk lañ lay woo. Mhm. maam nit nelaw guddi sax mën li ma ko def bëritut. Mhm. ndax li li tax mooy nit ñi léegi ñu heure. ndax fu nekk la nit di wooyee. léeg-léeg am ñoo xam yaa ngi ci xaaju guddi. ñoom ñu ngi ci bëccëg. ñoom heure boobu heure boobu ngay mën diggante ak ñoom mais terewul ñëpp ngay wuyu. waaw de man moom ndax man ma mm-hmm. que li ma wax sànq rek. Mm-hmm. yaakaar dafa fort. Mm-hmm. te nit ki ba amee ci yow yaakaar ba sañoon jot la. man sama téléphone yëpp maa ko yor. dëgg la waxtu wu nekk nag. boo wootee man ngay jot. man maay wax ak yow. dëgg la waaw comme mën a doon nag. dëgg la man maa lay wuyu allah. am na solo te se ak nit ñi sama tel sama batterie dafa wàcc ak yooyu musuma ko dégg ci moom ni ma leen ko waxee rek ñoom ak seen bàmmeel man ak sama bàmmeel kon am na hmm. loo xamante ni jaraluñ ma ko lay sotti nag sunu borom lay jóge hmm. kon yàlla na yàlla sottal seeni mbir waaye sëñ ma dikkee jaaro yi mi ngi toj dëkk bi manqué woon na commande bi ndax non seulement jaaro yi am na njariñ waaye sëñ ma dikke ni mu koy joxee jàpp na ne ki am jafe-jafe ba ma war koo mën a jox jaaro pour mu yokku kooku amul lu diis lu ma ko teg hmm. euh, euh, jaaro yi nga ñëwal ñu ci tuuti. waaw xam nga jaaro yi moom nu euh, ma ko waxee rek moom dafa bari na ay façon nag waaw ndax gis gis nga per bi. waaw. per yi moom euh, jotul kii bi daal ndax yaa façon ku ni ku ne ak couleur ak ba mu bëgg rek. moo xam muy jigéen moo xam muy góor. Mm. waaye jaaro yi mën nañ see liggéey loo xam ne. Mm. Euh, du ma ne du ma ne mën ko am jaaro yëpp. Mm-hmm. waaw démb rek am na ko ma lu mat ñaar fukki jaaro yoo xam mi ngi ak moom mu teg jal ko doo ko jal jal. Mm. foto ko wan ma ko. Mm-hmm. nee ma nee ma ci sëriñ si la ko jëlee. waaye lañ ko ci waxoon a la tax mu jël ko mm. gisu ci dara gisu ci dara waaw mm-hmm. nee naa ko nag mu amati man bu faroot benn jaar duma ko woon mm-hmm. waaw ndax lii nii amaana xëy na bu ko joxoon ñeneen mm. dana baax ci ñoom dana baax ci ñoom la la koy waral mooy mm. ñàkk ña ñàkk gëm mm-hmm. ndax mbir lu baax a baax te gëmoo ko la nga ci bëgg doo ko mën a am ñàkk gëm mais mën naa am yitte ji euh, sëriñ Madické di def ci jaaroom euh, yi yitte boobu am na keneen koo xamante ni du ko def surtout bu ko nit ñi dëgmalee voilà ndax xam nga xam-xam des xam dañ koy jàng mm-hmm. xam-xam mm. dañ koy jàng te nga fii mm. lu ndaw moo fi nekk mm. lu ndaw loo xam fi ne mën naa toj àdduna mm-hmm. lu ndaw mooy ni ci biir loola mën naa toj àdduna am na ci boo xam ne moom bayrat ba dongo lay doon ngir nit ñi di ko gis seen xol di sedd ci yow am boo xam ne pour kaaraange la <laughs> am na ci boo xam ne wërsëg lay dox <laughs> am na ci tam boo xam ne ngir nit ñi sopp la ba di topp mm-hmm. waaye ngalla bu ñu toppee mën naa amal njëriñ dañ ma koy jàmbal ba tàyyi nag mhm. waaye nag man mooy jaaro bi nga xamante ne koo koo jox loxo ku ne mhm. na fekk mu doon ko am njëriñ bu amul njëriñ ñi dina la lëjal topp la da lay sonal te mhm. te man bu la xasana samay néew ci dëgg la parce que wax naa ba tàyyi ne bëgg nit ñi bëgg la ba mu tax nga def la war a def dëgg la da ngay xool ña nga ña nga koy séqal la nga bëgg ci ñoom ak fa nga bëgg àgg ak ñoom nga def ko waaye koo gis rek jàpp ne moom la ba waajaay ne nga dugg ja da nga dem da nga dem ba di ko rëccu la fa ngay mujj mooy dindi jaaro bi sànni ko képp am na solo sëriñ Madické la ñu àndal ma nga marché maam jaara ci géej waaye ni ma leen ko waxee 77 la 882 53 34 wala 77 163 48 50 sëñ Madické tey du ma wax siti duma ma wax hémorroïde yooyu moom dañ ko jël classé ko teg ko ne ku mu jot ku nee na la woo waaye ñëwaatal ma ci kattan ak fem yu bees yi nga ci am ñu tàggoo ko mbokk ci waa ji moom li ma ci am mooy sunguf mm. waaye nag bala ma la ko jox mm. nañ ko xool ba xam ba ay rab la mm. wala def-def la mm. lu mu ci mën a doon nañ ko xool mm. parce que nee naa man làmbatu man bokkul sama mbir waaw ndax làmbatu mën naa yàgg lool nga nga gis la nga doon xool wa ilaa doo ko gis man damay xool ba xam ne euh, diw mii lii moo ko gàllankoor ci wàllum ci wàllum kattanam wala muy wàllum am doomam wala wala wàllum taxawaay lu mën a doon mm-hmm. ndax kattan moom musibal yàlla moom yàlla na ci yàlla musal mm-hmm. ndax man nit mën na ko def nit mm-hmm. ay rab mën na koo def waaw dem demam yàgg dem yàlla doo ko ca mën naa am. Mhm. waaw ndax ba jur loola it waaw nga di ko sooxaale. waaw mu mel ni ba mu dem ba jur yooyu yëpp. Mhm. waaye lu mu ci man a doon nañ ko xool ba xam li li sabab bi. dëgg la su boobaa am na sunguf soo xam ne subaa ngoon nga koy jëfandikoo. Mhm. waaye bis boo ci naanee ñaar yoon suba ak ci ngoon gi. da xam ne yor nga sunguf su baax. te nekkul loo xam ne bu sunguf jeexee mu dellu fa ne woon. day continuer incha allah. da nga jël sa sunguf ba mu jeex rek. après nga bàyyi. bu la neexee a jeex. même boobu même maam du yàq dara ci li ci sa kattan incha allah bu soobee yàlla day continuer mhm. mu ngi noonu macha allah yaakaar naa ni mbokk yi dégg nañ fi lu leer nañ waaye fexe leen ba mu toggal leen ci der bi amal leen ci ñetti fan ci seen yitte ndax macha allah fa tabarakallahu euh, du ma wax ci moom ndax bu ma waxee ci moom euh, danaan maa ko catu te tey jii dafa ñëwee aal boo xamante ni moom rab wi dafa ma daf maa wan ginnaaw carrément waaye forcé naa ko ba mu ñëw yet wu ñuul der bu ñuul xanaa dinañ ma ci xoojal ma naan waaw xanaa wala ma sant yàlla bu baax di julli ci bi di santaat Serigne Touba bu bir ndax ma damay wax ne amuñu lu dul Serigne Touba mm. yaakaaruñu lu dul moom te bëgguñu lu dul moom mm. waaw donc sant bu baax nag mm. waaw te di ko gërëm nga euh, te sant ñëpp waaw tey gërëm ñëpp tey jégaluwaat ñëpp nag te xam ne maanaam boo wootee nit ki jotoo ko rek xamal ne ba ñu laa wuyu dafa ñàkk jot dafa ne ci liggéey ndax léeg-léeg nit di seetal nit ki wala mu koy ñaanal nga di ko woo mënut mënut rek la muy def mm-hmm. surtout nag boo nekkee ci course mm-hmm. doo mën a wax téléphone mm-hmm. faaw dangay bàyyi ba mu sonné ba dagg boo paree nga xool kala woo nga kala woon nga woo ko man nga ko fàtte ndax bopp bi de yenn saa yi day surchargé ba am na yenn yoo xam doo ko attan loolu la maa ngi ciy jéggalu bu baax a baax samay client te xam ne moom mi ngi leen dal te man dal xam naa ci dara bu baax a baax maam du sama ñàkk yitte ndax bu ma sañoon mën a jot ñëpp mën a ñëpp téléphone ndax man ñoom rek laa fi nekkal yàlla xam na ko maa waaw maa ngi ci tubaat baax te te di ci bu baax a baax mm-hmm. te ñaan réew mi yëpp jàmm ndax yàlla rek moo ma mën a def ko fa maa def yàlla na ko fa yàlla def nag ci barkeb alxuraan mm-hmm. barkeb xasida yi barkeb Serigne Touba amiin ok jërë ngeen jëf jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax Serigne Madické Gadiaga nekk fële ca marché euh, boori marché Mame Diarra ci waay macha allah fa tabarakallah doon koo xamante ni dootuma ko présenté su ngeen ko weddee dem leen vaar ci émission yi ñu jot a def yépp kaddoom benn la tey nag eh, waxi démbam ak jëfi bi ma ko méngalee muy benn man ci laa ko nawe ci laa leen nawe itam yéen ñi wéy di ànd ak ñun di leen jox rendez-vous rek très prochainement incha allah di gërëm bu baax a baax équipe technique bi ci njiital Dóor waar nga xamante ni macha allah trois ans na lay def. dafay chargé wu lumière yi chargé wu son yi ba pare situé caméra yi situé bu garaaw kon Dóor waar ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal yàlla na la yàlla yokk wér yokku leen ki ko yéen ñi doon seetaan mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fi amaani la jangeen jëf